waaye du waxtaan ak moom voilà mais lii moom ñaan ñu ko yàlla lii yàlla lii rupture la jeex na jeex na muus yi muus yi ci palais moom vidé nañ leen jeex na voilà donc les euh, noonu lañ koy continuer nii ko jomaay jàppee noonu lañ koy continuer te ngeen moytu di tontonte xeetu ñoom Omar yi ngeen moytu ngeen moytu ko parce que loolu lu dignité dignité gi ngeen am loyauté bi ngeen am xeex bi ngeen xam ba teg ko fi Omar bu dee télé yi amuñu seen plateau dañoo vidde ba mun a invité Omar Sow mun a mythomane yéen bu leen nekk di tontonteeg ñu mel noonu ci internet bi voilà Omar dafa fen ba verte <laughs> zone rouge kay bu am étoile fen rek lay def <laughs> mais nag eh mais nag Omar fen yi neex la yor fen yu neex la yor am xam nga ko woykat boobu nag I love the way you lie woykat boobu I love the way you lie man Omar dafa ma neex te ba fa mën a fen fen dafa neex <laughs> fen dafa sérieux ay fen yu sérieux la ay fen yu sérieux lay def day mel ni ku tegal gi war <laughs> a man Omar man j'aime bien ah j'aime bien les mensonges de Omar quand même bien les mensonges de Omar voilà euh, dama koy déglu nag pratiquement Omar man sa fan sa laa quoi dama lay déglu di ree rek ak <laughs> yaa bu a fen ak yaa bu a fen yaa ndax duul Afrique soo jant wallaahi man saa yi ma stressé Omar laay déglu barke alxuraan dama xaaral ma déglu duulkat bi turam mi ngi fi turam soriwul boo bindee Omar rek day ñëw gis nga gis nga boo mu bëggee déglu ay fen ni laa def rek xaaral ma gees waay Omar dafa may rey mais gars yi déglu tuuti ñu dem waaye du tuulu or conseil spécial amara ma nga nii de ñëwati <laughs> nag ñaari phrase la ca xam Omar du lu mos a trois phrases en français yu tegaloo mu ses intérêts sont menacés ses intérêts xam nga dama ne dama ne rek rek enchaîné du français bi du yegg sax. dafay du daje mu yónni ay nit. Hmm. te man li may wax xam naa ko mooy lan y' a beaucoup d' argent qui qui rentre via des personnes yoo xam ñu ngi fi te yor nañ ko te ñu ngi koy manipuler waxuma ko nag pour pour wax pour dara mais man dama wax ko parce que tamit euh, Sénégal ak France. am nañu ay relation yu important Maroc ak Sénégal am nañu ay relation yu important importante la ñuy wax Omar relation la ñuy wax du ñu wax relation une relation boo da wax français wala nga wax ay relation yu important moom vraiment en tant que conseil espécial am na ay relation yu important relation importante Omar Omar jàngil Omar damal nga defi formation Omar jàngil Omar xaw ma noo mën a doonee conseil boo xam ne même relation mënoo ca def importante jàkkaarloo ñoom jomaay yooyu. du fooyee français. mais tamit waroon nit aussi tamit jël sa intérêt boobu wala sa intérêt yi tax tamit nga jël nga sacrifier ñëpp ba pare yow nga bëgg a dem toog fële di a toog fële di làkkatu ci ay ay ay ay mm. loolu mooy loolu mooy la la loolu mooy mbir mi léegi nag xaw ma ndax jomaay dina ko ci bàyyi xaw jomaay wala ko xaw ma dinañ ko ci bàyyi. mais man li ma gëm rek mooy opposition bu mu war def mooy ñoo toog fii jàkkaarloo ñoom. du fooyee français. waaw léegi yéen yéen léegi kay kii kii lan la ko Macky Sall di doyee ngeen yaakaar kii kii lan la ko Macky Sall di doyee déggul français déggul anglais déggul espagnol amul xam-xam amul benn compétence léegi kii lan la ko Macky Sall doon doyee <laughs> kii lan ko Macky te kii conseil spécial la de spécialu président kii lu ko Macky Sall doon doyee lu ko Macky Sall doon doyee léegi kan moom ko mën a expliquer <laughs> Omar Gueye nu mu ci fen on reviendra peut-être sur les lu mu ci fekkul dara ci palais bi yooyu yëpp c'est des questions ci a taxaw am taxaw seetlu boo xam ne leen lay taxaw seetlu kii nee na fekkul dara ci palais bi nga naan dañ war ñu fi jaar jàll lañu taxaw seetlu parce que Rasulullah nañu Macky Sall yàpp nañu non cët tët non Sénégal félicitation billaahi kenn amul seen fay gis ngeen ñi ngeen fi jële <laughs> yéen fi jële ay bandi salte ay doomi xaj <laughs> Sénégal non man boo leen reyoon sama waa kër sax kontaan naa ci yéen ko billaahi ñin ñi boo leen xamoon ñi ngeen fi jële bés boo leen imaginer ñi ngeen fi jële di ngeen xam ni yéen ay jàmbaar fàq tëdd di ngeen fàq tëdd ni ngeen xeex ba jëlee fi ñoom Omar yi bi nii moo tax dafa am traumatisme crânien Omar da dof day wër ci tale moom pour moom ba léegi pale la rek Omar génn nga pale Omar génn nga Omar Omar Omar pale pale jeex na jamaaya fi ne pale dem na ah da nga amay traumatisme wa waaw naa xool benn spécialiste ñu yóbbu la faan war a dalal xel faj la <laughs> pale moom génn nga fa pale nekkatoo fa <laughs> gëmal yàlla de <laughs> ndeysaan yàlla la yàlla yërëm taxaare la àjjana sénégalais ñooy jàmbar de tudd xeex ba génne pale kii kii kii waaj yi conseil spécial kon nag ay nomination moom vraiment xaw ku ci critiqué comme kii nii kii ngeen dégg nii kii ngeen dégg nii pale la ne woon di fa yeewoo di jóg muusu pale voilà donc euh, vraiment rupture am na ñi koy sante yàlla rupture am na léegi vraiment ay xeetu Omar newuñ palais ay xeetu ma cuucu fay newatuñ fële ay fera ay fii su ma cuucu fay nekkatuñ fa léegi ay gor ay garde ay combattant yu xare bay bëgg dee ñoo fa nekk ay Ousmane Diagne ay ay euh, euh, ay Ousmane Diagne ay Boy Bentaleb ah ay Boy Bentaleb et cetera et cetera gars yëpp vraiment léegi gor yi gor yi génn nañ gor yi génn nañ jaam yi daaw nañ daw nañ dem kon nag félicitation Diomaye ci taxawaay bi man moom comme nu ma la ko defee calendrier rek calendrier chaque jour maa la wax man man bëgguma dara dara dara dara lu dul un conseiller bul ma sax def spécial bu la neexee daf ma conseiller daf ma sa conseiller rek daf ma conseiller parce que bëgg naa dara dara nit di fexe ba balaa yegg si ci yow mu mun nañ cee waxtaan trouvé man conseil lu conseil conseil kese kese bëgg naa nga def moo ko bu jarul sa spécial mais vraiment dañ ñu yëgale ñu yëgal ko conseil lan mooy conseil nan la ñuy ànd ak président di ko conseil di ko wàññi di ko moytuloo lii waxtaan teg débat bi wàcce nga xam ne amul amul complexe ci sa kanam defu la yàlla nit la la def voilà loolu euh, man loolu laa bëgg loolu laa wax bëgguma directeur tous bëgguma man daal je veux être vraiment au côté de Diomaye voilà loolu moom bëgg naa ko wax protection lépp waxtaan teg sujet yi ba mu mat voilà mat naa ko sëkk teg xoolal bu ci amee bu amee bu amee lenn rek man maay njëkk a génn démissionné wala xam billaay wallaay kese loolu kese ma sacrifier li ma fi yor yëpp lépp dem voilà sacrifier li ma fi yor lépp lépp lépp lépp dem taxaw protection bu mat di ko conseillé di ko wax lu sénégalais di dund di ko wax réalité bi di ko wax lépp di toog ak moom di naanandoo ataaya di ko waxtaanal di wax di ko wax dëgg di ko wax lu ñor di ko wax li sénégalais yi du ma am complexe am ama ragalam te am na loo xam ne jot nañ ko fay dund man ak moom en tant que gaayinoo di waxtaan donc boobaa dëgg kese laa koy wax dëgg kese point point point loolu moom jox naa ko calendrier du benn du ñaar di ña la président je veux être ton conseiller le président je veux être ton conseiller le président je veux être ton conseiller te loolu boo ko defee benn sénégalais du ko bañ je veux être ton conseiller je veux dama bëgg a partager ak yow dama bëgg a partager j'ai beaucoup d'informations dañuy jëli information fële di teg lu gars yi di waajal di teg di partager ak yow di waxtaan ak yow bu bugguma doon conseiller nag bu mel ni Omar vraiment nga def ma conseiller moom munoo ma fi fay lu ma amul fii maa ngi Canada ci dëkk yi high level yor fi ngandam maami kër di lekk ba suur di naan ba màndi yor salaire bu dëgër këcc di fayeeku trente dollars heure nekk manager fi may liggéey nekk manager ponkal nammuma dara deseg sama ngor donc amul Sénégal munoo maa fay li may fayeeku fii te fii seddaay gi fi nekk jàmm ji fi nekk manque de yoo yu fi nekk manque de yi fi nekk manque de euh, ngoxi ngox yi fi nekk amul foofu kon foofu suicide individuel la kamikaze la mais man si suis prêt pour pour pour bàyyi lépp privilège lépp lu ma gi ñëw jege ak yow ànd ak yow liggéey di la conseiller pas nag nga teg ma fa rek duma la gis loolu moom bu ma ñëwoon toog tey nga teg ma fa mënuma la gis mënuma la teg bët mënuma la wax moom damay démissionner parce que moom ñëwuma fa bàyyi li ma fi yor yëpp càmb ji ma fi yor yii yëpp ñëw fa vraiment duma la mën a gis wala di wax ak yow parce que man moom bëgguma gars yi dugal la ci trou bëgguma gaa yi làq la jant bi bëgguma gaa yi di la nëbb dëgg bi bëgguma vraiment ak nu ma mel ak yow bëgg naa voilà loolu moom nëbbu ma ko loolu kese laa bëgg rek conseiller te fay ma sax cinq cent mille fay ma xoola fay ma deux cent cinquante mille fay ma xoola fay ma deux cent cinquante mille amul benn problème billaahi fay ma deux cent sax cinquante mille laa ma yeewu sax di dugg ci car rapide bi man dérangé wu ma yeewu dugg ci car rapide yi di ñibbi dérangé wu ma di wàcc Sandaga di wàcc Colobane di wàcc fépp di déggante gars yi di gisante gars yi di lépp lépp lu ma am dinaa ko teg comme ça renseignement généraux di la ko tegal ah lii lii lii bomb à retardement la lii ñi ngi koy waajal ñii ñii nee nañ lii lii nangam kese nga nand lépp comprendre lépp jël lépp préparer lépp dara du la bett voilà pour vous dire nag léegi nag nee naa la xool bu la neexee sax fay ma deux cent cinquante mille fay ma deux cent cinquante mille voilà man amul benn problème dérangé wu ma man na sa jàmm rek ak sa réussite laa bëgg sa réussite mooy réussite Sénégal yi Sénégalais yi te il faut nga réussir te da war a réussir te am nga compétence yi am nga mën-mën bi am nga xam-xam am nga njub gi te da war a réussir mais ñii rek moom ñii bandi salté yi ñoom Omar bi Sow yi bandi salté yi